jërë nga jëf mbokki internet di deuxième retour de parquet nag la daal di am moom biram Souleye Diop moom nag nekk président bu groupe parlementaire euh, bu Yewwi Askan Wi nag daal di nay daal am beneen retour de parquet président bu groupe parlementaire bi la nag di wéy ci turu Birame Souleye Diop nekk tamit ba tey numéro 2 bu parti Pastef les Patriotes administrateur général ba te njiit la di Ousmane sonk euh, am na beneen retour de parquet ki ñuy xibaar yu mel nag di avocat maître Moussa Sarr moom Birame Souleye Diop nag gannaaw ba ñu ko daal di déféré foofu ca parquet ci lu jëm ci offense au chef de l'État diffamation contre un chef d'État euh, étranger de nature à zapper les relation diplomatiques waaye aussi discréditer li nga xam ne nag mooy une institution euh, mais aussi un acte et de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois député bi la nag président bu groupe parlementaire coalition Yewwi Askan Wi nekk maire tamit bu Thiès Nord Euh, daal dinaay euh, euh, dafa doon avertise ñi nga xam ne ñooy les futurs candidats yu APR candidat ñuy décider nag de ne pas faire confiance à ki nga xam ne moo di njiitu Macky Sall maanaam ñu bañ daat xool bu baax fa ñu teg seenu tànk këram sax bu ñu fa daal di lekkee wala ñu fa naan ndax moom mi ne daat mën leen ni empoisonné loolu di kàddu yoo xam ne moom Birame Souleye Diop yëkkati woon na ko ci ab conférence de presse bu coalition Yewwi Askan Wi te njiitam di Ousmane Sonko njiitam euh, Pastef mënut foon a teew euh, tax nag mu teewoon fa ngir jël kaddu ca palaasam. waaye nag kàddu yooyu daanaka daal yóbbee na ko ñu daal di koy convoqué ca sûreté urbaine ba ñu ko dégloo nag mu ne garde à vue déféré nañ ko ca tribunal waaye retour de parquet la mujjee am. moom Birame Souleye Diop euh, doon télé sax gannaaw kàddu yooyu génne woon na ak beneen vidéo ngir nag jégalu ci kàddu yi nga xam ne euh, jàpp na ne kàddu yu déplacé wu la lu rëcc la te mu ngi koy rëccu di si jégalu bu baax a baax waaye nag fi mu toll nii avocat am daal di maître Moussa Sarr mu ngi xibaar ne moom mi dafa daal di am li nga xam ne moo di beneen retour de parquet des Sarandi nag gannaaw janoom ak ki nga xam ne moo di procureur bu tribunal bu Ndakaaru fan la waananti di bu jekki gëtëm ak dossier bi nu mel moom Birame Souleye Diop nekk administrateur général parti bi di Pastef nekk tamit député président bu groupe parlementaire coalition Yewwi Askan Wi waaye tamit maire bu Thiès Nord gannaaw nag kàddu yi nga xam ne yëgit na ko ñu toppee ko ko moom Birame Souleye Diop ci conférence de presse bu coalition Yewwi Askan Wi des deesxaal nag ana fan la wanante di mbujjee ki gëtam ak dossier bi nu mel gannaaw retour de barke boo xamante ni bu ñu sukkandiku ci avocat bi la di maître Moussa Sarr amaan na ko beneen bi yoon ñu ngi ko nag defeere foofu ci tribunal bu Ndakaaru niki aljuma bi la ñu génn seen Sûreté urbaine lañu ko dégloo woon mu ñëwaan ak ci kàddu yi xam ne naan erreur de communication la mu ngi koy rëcc bu baax a baax di ko regretter te di présenter ses excuses ki nga xam ne mooy